قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala ci yonant bi sangu-sang yi sallallahu alayhi sallam tey waxtaan wiñ ñu leen indil ci xutba ajuma bi moo ngi nekk al wafa bil ahd wafa bil ahd buñ ko waxee moom mooy nit ki matal li nga xam ne moom mooy ay engagement am lépp loo xam ne lii séq na ko ak doomu aadama mu matal ko waaye la mu seqoon ak boromam aussi mu motal ko la mu seq aussi ak ay jege ñaaleem mu motal ko moo tax suñ borom di lay taalee aaya boobu mu ne na ngeen matal li nga xam ne mooy dig yi bu fekkee da ngeen diggante ak nit nangeen ngeen motal dig ndax digg yooyu ëllëg yowmal xiyaama danañ leen ko laaj kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi yonent bi saa salaam nee na képp kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la waaye ku nekk ci yéen rek nga xam ne sàmm la sàmm boobu nañ ko laaj li nga xam ne moom lañ ko dénkoon kon nañu rafetal li nga xam ne moom mooy diggante yi nañu rafetal li nga xam ne mooy engagement yi nañ koy motal comme ni ko yàlla subhanahu wa taala santaane ndax loolu dafa bokk ci recommandation yi nga xam ne yu gën a màgg la yu borom bi subhanahu wa taala joxe nga xam ne ëllëg yowmal qiyaama duñu ñu seqi jéego lu dul dañ ñu ko laaj engagement bi nga xam ne moom moo jiitu ci doomu aadama yi jiitu tamit ci jullit bi nga xam ne dafa làmb doomu aadama yépp ca azal la woon borom bi subhaanahu wa taala moom moo ko séqoon ak ñun engagement boobu wa id axada rabbuka min bani aadama min bani aadama min duhurihim durriyatahum wa ashhadahum alastu bi rabbikum qaalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hada gafilin suñ borom subhaanahu wa taala mu ngi wax ci aaya boobu ne fàttalekul jamono ji nga xam ne sa borom jël na li nga xam ne mooy engagement siñente na ak doomu aadama pacte pacte bi nga xam ne moom la signante ak moom mooy lan mu génne d'abord ci ndiggi doomu adama ak progéniture doomu adama yëpp nga xam ne ñoom ñoo nar a gane ci kaw suuf mu daal di leen seedaloo li mu leen seedaloo moom mooy xanaa du man may seen borom tontu biñ ko tontu ñun ñëpp nga xam ne ñun ñëpp ñoo wax ci benn kàddu dañ ne balaa dëggantaan yow suñu borom yow yàlla yow yaa suñu boroom loolu daf ko def ngir ëllëg yowmal xiyaama ñu bañ a am lay ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala moo tax mu ne an taxulu yowmal qiyaamati inna kunna an haada gafilin ndax yowmal qiyaama du ngeen ñëw ñu leen ciy xisaab ngeen wax ne lii de ñun yëguñu ko woon mooy fitra bi nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala moo ñaale doomu aadama bi nga xam ne saa yu gisee dëgg rek fitraam daf koy nangu li nga xam ne moom moo nekk ci biiram en tant que nit en tant que doomu aadama dafay nangu li nga xam ne moom mooy njub googu nga xam ne moom la ko borom bi wala boog da koy reconnaître imma léegi nag mu nangu ko wala boog mu rejeté ko mais moom dina xam ne lii moom mooy li yàlla subhaanahu wa taala deelante woon ak man ndax loolu dafa bokk ci doomu aadama dafa mel ni nga gis benn image ñu indiwaatal la ko nga reconnaitre image boobu soit na ngay nangu ne gisoon nga ko wala boog nga bañ ne gisuloo woon image boobu kon loolu li muy wane mooy suñu borom subhaanahu wa taala wàccee na ak ñun wàccoo na ak ñun jamono bii nga xam ne seedaloo nañu ba pare wàcc ñu ci kaw suuf jëfloo ñu ngir yawmal xiyaam mu daal di ñu fay. kon dañu war a jaamu borom bi subhaanahu wa taala ci engagement boobu bañ ko bokkaalee ak dara nga xam ne suñu engagement dafa war a nekk benn engagement boo xam ne bi bu mat la maanaam bu fekkee ne dañuy daalante ak borom bi. bu fekkee nañu matal li nga xam ne li ñu daalante woon ak borom bi il faut que mu nekk loo xam ne nii dafay mat sëkk yaa ayyuha ladina amanu dxulu fi silmi kaffatan wala tattabiu xutuwaati sheytaan la borom bi wax yéen ñi nga xam ne yéen yéen a gëm yàlla dugg leen ci diine lislaam na ngeen toroxlu dugg ci soumission bi de boo xam ne bi wala ci façon boo xam ne bi dafa mat sëkk dugg leen ci islaam ci lu mat sëkk su ko defee ngeen bañ a topp li nga xam ne moom mooy ñalli seytaane yi nga xam ne moom mooy oote moom ak ay waa këram ci li nga xam ne mooy safara te ay yoonam dafa bëri waaye yoonu borom bi subhaanahu wa benn la wa anna haada wa anna haada siraati mustaqiman fattabiuhu wala tattabiu subula fa tafarraqa bikum an sabili yonent bi saa dafa am bés mu toog ak saxaaba yi mu daal di tracé benn ligne bu gudd wala boog bu jub bi mu tracé ligne bi mu tracé waat wala boog mu rëdd yeneen ligne yoo xam ne ñoom ñooy ñëw dagg ligne boobule yonent bi saa salaam daal di jàng aaya bi ma jàng léegi mu ne lii daal moom mooy yoonu yàlla bu jub bi nangeen ko topp waaye bañ a topp li nga xam ne mooy ñal yi nga xam ne dafay dévier ci yoon wi nga xam ne moom mooy jëmee àjjana kon dañu war a toroxlul borom bi subhaanahu wa taala ci di ko jaamu waaye ni mu ko santaane waaye ni ko yonent bi saa salaam jàngalee nga xam ne islaam suñu islaam bi dañ ko sos ci juróomi ponk bu njëkk bi muy shahadatu an laa ilaha illallah beneen bi maanaam seede ne amul benn buur bu dul borom bi subhaanahu wa taala bi ci topp moom mooy taxawee li nga xam ne mooy julli maanaam joxe julli comme ni ni mu waree ginnaaw loolu ñu taxawal li nga xam ne mooy zakat képp koo xam ne kii am nga alal joo xam ne ji mat na nisaab rek nga daal di génne loolu nga xam ne moom moom la ci borom bi subhaanahu wa taala laaj muy zakat beneen bi tamit moom mooy di woor li nga xam ne mooy weeru koor sawmu ramadan nga xam ne weer la ci juróom euh, ci fukki weer yi ak ñaar amul beneen weer bu dul weeru koor boo xam ne bi war nañ ko mën a woor mu nekk woor goo xam ne gi dañ ci jege borom bi subhaanahu wa wala boog weer woo xam ne bi dañ ci jëre jege borom bi subhaanahu wa lu dul woor yi nga xam ne ay ooru gàttañ gàtta nga lay nekk muy ooru sunna ginnaaw loolu ponk bi nga xam ne moo ci topp ci koo xam ne kii mën na ko li man istataa ilayhi sabay sabila nga dem li nga xam ne moom mooy aj su ko defee mooy juróomi ponk yi nga xam ne wala boog juróomi jaamu yàlla yi nga xam ne mënul ñàkk ci dund doomu aadama yi ginnaaw ginnaaw loolu tamit am na ay recommandation yoo xam ne suñu borom defal nañu ko wala boog ay santaane am na ay mbir yoo xam ne yi borom bi sant nañu ko ñu war ko koo jege ñu war koo jege ci loolu le waaye yonent bi saasaam daf ñu wax ci santaane yooyu ginnaaw ginnaaw bi mu ñu waxee tamit ci li nga xam ne mooy tere yi nga xam ne diine ay santaane la ak ay tere santaane yooyu yonent bi saa salaam dane lu ma leen digal na ngeen ci def lu ngeen mën maanaam munu leen def lépp li leen yàlla sant munu leen def lépp li leen li ma leen di may man sallallahu alayhi wa waaye li ngeen ci mën rek na ngeen ko def seen kéemtalaay kàttan waaye su ma leen teree na ngeen bàyyi lu ma lépp lu ma leen tere maanaam jëfe yi euh, jëfe li nga xam ne mooy ndigal yi moo gën a jafe bàyyi li nga xam ne mooy tere yi ndax tere lépp lañu war a bàyyi waaye ndigal yi dañ ci war a jëf suñu kéemtalaay kàttan su ko defee loolu engagement la boo xam ne bi dañ ko am suñu diggante ak borom bi subhaanahu wa taala wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun engagement bi nga xam ne moom lañu jël ak borom bi subhaanahu wa mooy ñu jaamu ko bañ ko bokkaale ak dara waaye moom engagement bi mu am ci ak ñun ginnaaw bi mu ñu bindee mooy mu dugal ñu aljana bu fekkee ne topp nañ ko buñ ko toppee mu dugal ñu aljana loolu mooy engagement bi mu jël ak ñun te bu ñu motalee rek moom mu motal bu soobee yàlla wa awfu bil ahdi innal ahda kaana mas'ula ginnaaw loolu am na ay engagement yoo xam ne tamit doomu aadama bi am na ko ak ay wayjuram am na ko tamit ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay jege nga xam ne ay engagement la yoo xam ne dafa naturel maanaam nit ki bi biñ la bindalee biñ la bindee rek jaarale la ci ñaari way wayjur engagement boobu dafay nekk loo xam ne dafay war ci yow sa diggante ak ñoom su ko defee nga war a nekk koo xam ne kii danga koy honoré boo bëggee ëllëg ñi nga xam ne ñoom nga yilife jur leen ñu honoré engagement yooyu bi ci jëkk moom mooy nit ki dafa war a am maanaam jëflante dafa war a am jëflante bu rafet diggante ak ay juróom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo ko meññ yàlla nee na wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wa bil walidayni ihsaanan man daal man maay ki décrété man euh, yàlla subhaanahu wa taala ma décrété amul kenn koo xam ne kii war nañ ko jaamu ku borom bi subhaanahu wa waaye tamit na nga rafetal jëme ci say ñaari wayjur wa bil walidayni ihsaana ci yàlla isa alayhi salaam nga xam ne moom dafa amoon benn wayjur moom ba mu ñëwee li mu njëkk a wax wala boog bokk na ci li mu njëkk a wax ginnaaw tawxid moom mooy lan mooy ne dañ ma digal ma rafetal jëme ci samay wayjur wala boog sama wayjur bu jigéen wa barran bi walidati walam yakun wa akun jabbaran shaqiya te man nekkuma koo xam ne kii maanaam ku dëgër la su ko defee relation bi nga xam ne aussi nit ki am na ko ak ay parents dafa war a feeñ ci maanaam ndànk goo xam ne dina am seen diggante maanaam nit ki bu fekkee ne dafa nekk ay ak ay ay ay waajuram dafa war a nekk koo xam ne kii dafay lewet ci ñoom waaye dafa war a oyof dafa war a wàcce boppam rawatina nag buñ nekkee ci situation boo xam ne moom mooy situation màgget maanaam bu demee ba nekk ay mag su boobaa relation boobu dafa war a gën a feddaleku ndax jamono jooju ci la wayjur bi gën a soxla li nga xam ne mooy yërmande bi nga xam ne mooy am digganteem ak doomam moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne saa yu demee ba nekk mag wala kenn ci ñoom ñoom ñaar yu nekk mag sa kanam wala kenn ci ñoom nga fekke seen mage waroo nekk koo xam ne kii danga leen di jañax waaye waroo leen di wax sax kàddu goo xam ne gi bu déplacé la lu mel ni uf maanaam waroo wax sax kàddu goo xam ne kii dafay wane ne yow da nga sonn waaye da nga war nekk koo xam ne kii da ngay lewet ci ñoom su ko defee nga am li nga xam ne mooy yërmande boo xam ne bi dafay nekk sa diggante ak ñoom wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira waaye tamit da leen di war a di ñaanal di leen ñaanal borom bi subhaanahu wa taala di leen yër ngir yërmande ni niñ la yërëmee woon yow bi nga nekkee xale nga xam ne mënuloo woon dara kon ñaan yooyu dafay war a nekk même bu fekkee ne wayjur wi dafa génn àdduna wala boog rawatina bu fekkee ne wayjur wi dafa génn àdduna yonent bi salaam xamal nañu ci xadis ne am na ñetti biir yoo xam ne yi du dagg bu fekkee ne nit ki génn àdduna bokk na ci waladun saalih yad'u lahu doom joo xam ne ji ju baax la ju baax ju koy ju koy ñaanal kon war nañ yar doom yi tamit ba ëllëg yombal xiyaam ëllëg ci biir bu fekkee ne ñun dem nañ ñu daal di ñu wuutu ci li nga xam ne mooy ay ñaan mu ñuy fekk ci suñu bàmmeel kon engagement yi nga xam ne nit ki war na ko jël tamit bokk na ci mu jël engagement digganteem ak li nga xam ne mooy dëgg digganteem ak njub mu nekk koo xam ne ki dafa war a taxawe li nga xam ne mooy njub taxaw ci dëgg yaa ayyuha alladina amanu kumu kunu qawamina lillahi shuhadaa bil qist yaa ayyuha alladina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada alillah ñaari aaya yëpp yàlla subhaanahu wa dafay interpeller doomu aadama yi ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm ci doomu aadama yi si ñu taxawee li nga xam ne mooy dëgg waaye def ko ngir yàlla rek yàlla rek tax kon nit ki bu fekkee ne dafay taxaw ci dëgg warul nekk koo xam ne kii dafay parparloo warul nekk koo xam ne kii dafay nëbb li nga xam ne mooy dëgg dëgg fu mu ko fekkee rek fa la ko war a bàyyi walaw ala anfusikum yàlla nee na dëgg ko même bu fekkee dafay dal seen kaw sax na seede li nga xam ne mooy dëgg bu fekkee ne mbir dafa dal sa kaw mu safaan yow da nga seedeel sa bopp li nga xam ne mooy dëgg gi ndax loolu la yàlla bëgg i'dilu huwa aqrabu lit taqwa na ngeen na ngeen maanaam ci seen i ndax loolu moom mooy li nga xam ne moo gën a jege ragal yàlla subhaanahu wa kon nit ki bu fekkee ne dafa nekk di liggéey mu nekk ci liggéey sax liggéey boobu dafa war a nekk koo xam ne ki daf ci euh, wane li nga xam ne mooy dëggu ak waaye wane ci li nga xam ne mooy ak njub bu fekkee ne tamit dafay liggéey liggéeyam boobu warul nekk koo xam ne kii daf ciy xaar en retour nit ñi di ko jox dara waaye dafa war a nekk koo xam ne kii dafa dafay def rek yàlla tax léegi fay gi du nit ñi ñoo ko moom waaye borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne moom mooy fay warul nekk koo xam ne kii tamit ci liggéeyam dafay favoriser ay nit maanaam tey bu fekkee ne sama mbokk dafa ñëw dafa dafa ñëw wala sama xarit wala sama jegeñaale soxla benn mbir nga xam ne mbir moomu benn la keneen ko keneen soxla ko koo xam ne kii moo gën a mérité kooku nga jël ko jox ko ki nga xam ne moo la gën a jege loolu bokkul ci li nga xam ne mooy mooy maandu maandu bi daal moom mooy ñu yemale doomu aadama yi ku nekk jël sa chance même bu fekkee ne sa doom na même bu fekkee sa perso euh, yow la personnellement da nga war a cédé wala boog da war a bàyyi nit ki nga xam ne moom moo la gën performant su ko defee mu jël li nga xam ne moom mooy wërsëgam ndax loolu la yàlla bëgg engagement yi tamit dañ koy jël suñu diggante ak jullit yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy maanaam ñoo dul jullit ak jullit yi ak ñi dul jullit su ko defee nit ki dafa war nekk koo xam ne ki tamit dafay maandu maanaam digganteem ay ak ay mbokk jullitam comme ni ñu ko waxee léegi waaye dafay maandu digganteem ak li nga xam ne duñu ay jullit ndax yonent bi salaam wane na exemple bu mel noonu ndax moom bi mu demee ba war a tànn ki nga xam ne moom moo koy yóbbu fi nga xam ne mooy mooy Madina dafa def benn appel d'offre maanaam dafa seet ci biir nit ñi ki nga xam ne moo ëpp capacité wala ki nga xam ne moom moo ko mën a doxal mission boobu mu daal di ko jël waaye ci ki mu tombeek ab yéefar la woon maanaam gëmul woon borom bi subhaanahu wa taala mais terewul kooku tamit accepté na nangu na li nga xam ne moom mooy mission bi ko yonent bi saa salaam santoon kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam exemple la bu bu rafet ci li nga xam ne mooy maanute nit ki tamit bu fekkee dafay engagé wu bu fekkee ne dafa bëgg a maanaam engagé wu ci li nga xam ne mooy daalante digganteem ak ay moromu euh, nitam moroomu jullitam ak koo xam ne kii du jullit balaa mu ciy dugg dafa war a xalaat bu baax ndax li may dugg nii dinaa ko man maanaam nit ki warul nekk koo xam ne kii rek lu ñëw dalay yóbbaale mais booy dugg ci dara da ngay mesurer ndax li ngay dugg nii mën nga ko wala mënuloo ko bu fekkee ne mën nga ko nga mën a engagé wu waaye tamit boo xasee ba engagé wu maanaam bu fekkee ne daalante nga ak doomu aadama yi su boobaa nag mbir mi dafay tegu sa kaw maanaam su boobaa yow dañ lay laaj su boobaa lañ lay laaj mais tant que engagé wu moom kenn du la toppee dara mais boo xasee ba engagé wu su boobaa nag dañ lay toppee li nga xam ne mooy say wax bu fekkee ne damay damay jëflante tamit jëflante googu dafa war a nekk loo xam ne lii maanaam ci xol bu yaatu laa koy def mais waruma nekk koo xam ne kii damay respecté samay engagement ci biir respecté engagement bi may lor doomu aadama yi nga xam ne ñoom laa ko séqal mais da nga war a def loo xam ne lii dafay dalal sa xel wala boog booy def na nekk ci maanaam xel mu dal su ko defee loolu mën a nekk loo xam ne aussi yàlla la ciy fay ndax lépp loo xam ne lii nit ki def na ko am ci yéene bu sell rek yàlla suñ boroom dina ko fay ëllëg yowmal xiyaama rawatina nag bu fekkee ne nit ki dafa dafa waat am na métier yoo xam ne yi nit ñi dañuy waat balaa ñu ciy dugg wala boog bu ñu demee ba see dugg dañuy waat lu mel ni médecin yi wala avocat yi wala yeneen corps yoo xam ne yu mel noonu la nit bu fekkee dafa waat waat ne dinaa respecter sama liggéey lii laay def ëllëg maanaam ci sama liggéey maanaam du ma favoriser kenn te du ma uññi suturay kenn su boobaa yow boo fekkee ne defuloo ko yow war nga li nga xam ne moom mooy sag waat war nga doomu aadama yi waaye war nga sa borom subhaanahu wa taala ndax ci kanamam nga waat waaye waat ci kanamu nit ñi nit ki tamit bu fekkee ne dafay jëf benn mbir dafa nekk di jëf maanaam euh, di jëflante ak doomu aadama waru nekk koo xam ne kii day tricher tricher moom mooy lan maanaam wane ci kaw loo xam ne lii moom nga nëbb euh, dafa contraire ak li nga xam ne moom moom nga nëbb ci suuf waa ji def na ko benn bés yonent bi saa salaam dugg ci marché bi fekk mu jël pepp ñii naan dugub la mu jël pepp benn saaku mu koy jaay mais pepp bi nga xam ne moom moo moo moo tooy nga xam ne moo ëppoon ci saako bi mu def ko ci biir pepp bi nga xam ne dafa wow nag mu def ko ci kaw pour attirer client yi yonent bi saa salaam ci xerañ gi mu ñëw dugal loxo bi ci biir saak bi gis mu tooy mu génne mu ne ko lii nag mu maanaam waxu ko lu leer mu ne ko kuy tricher ci ñun bokkul ci ñun maanaam ku ñuy nax bokkul ci ñun kon nit ki warul nekk koo xam ne kii dafay tricher di naxaate pour am li nga xam ne moom mooy am koom waaye tamit wala amwaalakum baynakum bil baatil suñu boroom nee na bu leen lekk seen alal seen diggante ci loo xam ne tegul ci yoon nit ki bu fekkee ne da ngay jël alalam dafay nekk loo xam ne daf la koy jox de propre gré de son propre gré waaye tamit bu fekkee ne joxu la ko ci li nga xam ne mooy propre gré su boobaa da nga lekk li nga xam ne mooy alalu jàmbur te loolu yàlla subhanahu wa taala nañu ko laaj ci xeetu wor yi la bokk aqulu ma tasmauna wa astaghfirullah bismillah alhamdulillah wasalatu wasalaamu ala salaam salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmiddin ginnaaw bi ñu waxee ci wàllu engagement yi nga xam ne doomu aadama yi war nañ ko seeq seen seen diggante jullit bi war na ko seeq ak ay moroomu jullitam su boobaa dañuy wax conséquence yu positif yi nga xam ne mën na ko am ci biir société bi am na ay conséquences yoo xam ne dafa positif am na yoo xam ne dafa négatif mais ñun tey ci suñu xutba li ñu soxla moom mooy conséquence wala boog résultat yi nga xam ne moom mooy positif maanaam yi nga xam ne moo gën ci société bi te moom mooy doxal société bi ci ñaari man ñaari ñaari tolluwaay la ñaari marxala la marxala bu jiitu moom mooy ci individu bi ci doomu aadama bi niveau bu njëkk bi moom mooy ci doomu aadama bi premier niveau bi nga xam ne dafa nekk loo xam ne lii dafay delluwaat ci doomu aadama bi daf koy delloo maanaam li ci jëkk nga xam ne résultat bu positif la daf koy delloo ci yoonu njub bu fekkee ne nit ki dafay tegu ci li nga xam ne moom mooy respect des engagements bu respecté am engagement rek yàlla subhanahu wa koy teg ci li nga xam ne mooy yoonu njub aaya bi koy dëggal walladina htadaw zaadahum huda wa ataahum taqwaahum yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy tegu ci yoonu njub bi dañ leen dolli li nga xam ne mooy njub ba pare dolli leen li nga xam ne wala boog jox leen li nga xam ne mooy ragal yàlla kon loolu am na solo jubal am na ay résultats am na ay fruits yu am solo beneen bi tamit nit ñi dañuy dañ lay jox li nga xam ne mooy wegeel dañ lay weg ki nga xam ne moom dafay jubal nit ñi dañ koy weg ki nga xam ne dafay respecté engagement nit ñi dañ koy dañ koy weg waaye tamit dafay am respect ci nit ñi wala boog nit ñi dafay am respect bu joxe jóge ci nit ñi beneen bi tamit nit ñi dañ koy bëgg su boobaa waa ji nit ñi dañ koy bëgg parce que dañ naan kii daal lu mu la wax dina ko def te loolu moom mooy li am solo beneen bi tamit suñu borom subhaanahu wa taala ëllëg yowmal xiyaama wala sax fii ci àdduna dina la fay loolu bokk na ci fay yi nga xam ne fay na la ko sa diggante ak sa moromu julliti su boobaa bu fekkee ne koo xam ne kii day def koom nit ñi dañ koy jublu saa yu maanaam bu fekkee ne dafa jëflante ak doomu aadama ëllëg si biir bu amee satisfaction kooku daf koy recommandé keneen su ko defee day nekk koo xam ne kii dañ koy xam ak mbaax ci biir nit ñi waaye ay mbiram dafay yaat kon loolu li muy li muy wane moom mooy ki nga xam ne dafay jubal moom amul dara lu muy perte muy perte ci njub gi donte sax maanaam li mu ciy séntu mën naa yeex donte mën naa yeex beneen bi tamit dafay indi li nga xam ne mooy cohésion maanaam déggoo ak jàppoo ak tàppaloo ci biir famille bi waaye daf koy indi ci biir société bi nit ñi dañuy dañuy bëggante su boobaa ku nekk da ngay jox sa moroom cër kon loolu lu am solo la li nga xam ne nag ay jeexital la wala ay asar la ci biir société bi bokk na ci société bi su boobaa dafay nekk société bu dal société la boo xam ne bii nit ñi yéenante jàmm ku gis sa moroom bëgg bëgg sa moroom waaye dafay nekk société boo xam ne bii am organisation dafay am organisation dans la maanaam ci li koy waral moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy maanaam ñoom ñooy respecté seen engagement maanaam lépp lu ñu dugg ci liggéey rek liggéey boobu dafay jaar yoon dafay jaar yoon kon organisation boobu foofu lay commencé benn bi ci topp moom mooy maanaam résultat yi nga xam ne moom la war mën a jur ci biir société bi nit ñi dañuy wóolunte kóolunte dafay da dafay dafay dox ci diggante doomu aadama yi su ko defee kenn ku nekk wóolu sa morom saa yu saa yu ma joxe engagement ma respecté ko su boobaa nit ñi dañuy am confiance ci man comme ni nga ko waxee sànq su boobaa man ñoo dénk leneen waaye tamit ma am confiance ci keneen koo xam ne ki am na jikko boobu kon bu fekkee ne dafa law ci société bi dafay nekk loo xam ne lii nit ñi dañ koy maanaam dañ koy adopté su ko defee nit ñi bëggante seen biir am li nga xam ne moom mooy wóolunte su boobaa tamit maanaam seen jëflante dafay nekk loo xam ne ni dafay leer kenn kenn du ragal maanaam sa moroom nax la walla yóbbu sa alal bi ci mujj moom mooy nit ki bu fekkee ne dafa am li nga xam ne mooy maanaam walla boog dafay respecté li nga xam ne mooy engagement su boobaa dafay yombalal nit ñi maanaam ñu gagné seen temps maanaam du ñu perte de temps du am su boobaa maanaam nit ki lu mu engagé wu tey rek bu subaa engagé wu ci leneen mais bu fekkee ne dama war a def benn tâche wala boog ma war a def benn mbir tey jii ci ajuma respecté wu ma ko bàyyi ko samedi def ma ko samedi yóbbu ko ba beneen ajuma loolu tardel naa borom lu tollook une semaine te loolu dafay tardel li nga xam ne mooy société waaye dafay delloo ginnaaw li nga xam ne mooy société waaye tamit dafay ñagasal li nga xam ne mooy relation yi nga xam ne ay relation humaine lañ maanaam relation diggante doomu aadama su boobaa daf koy ñagasal yonent bi saa salaam dafa wax ci xadis mu ne kullukum raain wa kullukum masulun an raayatihi képp koo nekk ci yéen rek ab sàmm la te sàmm bu nekk sàmm bu ne danañ ko laaj yowmal xiyaama li mu doon sàmm kon nañu rafetalaat sàmm gi bu fekkee ne boroom kër la ndénkaane la ndénkaane googu yàlla na ko laaj bu fekkee ne soxna la moom tamit am na ndénkaane bu ko yàlla di laaj yowmal xiyaama kenn ku nekk ci ñoom rek am nga ay devoir ak ay droit yoo xam ne yi yaa ko moom te sa morom moomu ko kon nañ ko respecté société bi tamit nañu respectante suñu biir bu fekkee dañuy engagé wu ñu engagé wu ci loo xam ne lii mën nañ ko ñu bañ a wax loo xam ne mënuñ ko man ne li ma gis mooy ne nit ki balaa ngay dugg ci dara balaa ngay ci dugg ci dara wala boo ngay engagé wu ci dara ëllëg ci biir ñu ne la yow yaa waxoon nga bañ a wax moo gën parce que boo waxee rek maanaam tënk nga sa bopp takk nga sa bopp buum su boobaa nag buum ngoog li koy tekki mooy lan mooy nga respecté engagement bi yàlla nañu yàlla may ñu respecté suñu engagement allahuma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina muhammadin fil malaa'il a'la ila yawmi din allahuma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afaf wal ghina allahuma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa tawbatan qabla al mawt wa rahmatan wa rahatan ba'da al mawt allahumma ahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada allahumma yassir lana umurana waqti lana hawaa'ijana innaka ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin